Hamsatu Jaxate sëriñ Hamsatu Jaxate mi ngi feeñ jamono ci atum 1883 ci dëkk boobu nag di Mewnu Jaxate ginnaaw bu mu feeñee jamono ci atum 1883 ci dëkk boobu di Mewnu Jaxate moom sëriñ Hamsatu Jaxate di doomu soxna Faati Jang Silla Libaasa ak kii di sëriñ Moodu Asta Jaxate moom sëriñ Hamsatu Jaxate nag ginnaaw bu mu feeñee jamono ci atum 1883 ci dëkk boobu di nu Jaxate am na nag ñoom bokkal waajur wu jigéen di soxna Jang Silla Libaas mii ak kii di sëriñ Moodu Asta Jaxate ñu mën caa ràññee ñuy wax sëriñ abdourahman jaxate ibnu soxna jang silla libaas ak kii di sëriñ moodu asta jaxate sëriñ abdourahman jaxate mii nag di doomu soxna jang silla libaas ak kii di sëriñ moodu asta jaxate di rakki sëriñ amsatu jaxate sëriñ ndaam abdourahman loo la ko waajuram faye ñaareelu doomu soxna jang silla libaas mi mooy sëriñ alsaan jaxate ibnu soxna jang silla libaas ibnu sëriñ moodu asta jaxate ñetteelu doomu soxna jang silla libaas mi ak kii di sëriñ moodu asta jaxate mooy soxna faati Fati Jaxate bintu soxna Jeng Silla Libaas bintu sëriñ Moodu Asta Jaxate ñeenteelu doomu soxna Jeng Silla Libaas mi ak kii di sëriñ Moodu Asta Jaxate mooy sëriñ Balla Jaxate ibnu soxna Jeng Silla Libaas ibnu sëriñ Moodu Asta Jaxate juróomeelu doomu soxna Jeng Silla Libaas mi ak kii di sëriñ Moodu Asta Jaxate mooy sëriñ Mbàkke Jaxate ibnu soxna Jeng Silla Libaas ibnu sëriñ Moodu Asta Jaxate sëriñ Mbàkke Jaxate mi nag mooy ki mu faye maam juróom benneelu doomu soxna Jeng Silla Libaas mi ak kii di sëriñ sëriñ moodu asta jaxate mooy soxna mariama jaxate bintu soxna jëng si la libaasa bintu sëriñ moodu asta jaxate juróom-ñaareelu doomu soxna jëng si la libaas mi ak sëriñ moodu asta jaxate mooy soxna astu jaxate bintu soxna jëng si la libaasa bintu sëriñ moodu asta jaxate juróom-ñetteelu doomu soxna jëng si la libaas mi ak sëriñ moodu asta jaxate mooy sëriñ xamsatu jaxate ibnu soxna jëng si la libaasa ibnu sëriñ moodu asta jaxate juróom-ñetti bant yi nag la soxna jëng si la libaas am ak sëriñ moodu asta jaxate ci juróom juróom-ñetti bant yi soxna jëng si la libaas am ak sëriñ moodu asta jaxate kenn ka nag la ñuy waxtaane di sëriñ xamsatu jaxate laataa sax ñuy xuus ci mbirum sëriñ xamsatu jaxate ñu indil leen ay leeral nag ci njaboot gi mu séq ak soxna jëng si la libaas ak sëriñ moodu asta jaxate sëriñ abdourahman jaxate mi sëriñ moodu asta jaxate faye sëriñ ndaam abdourahman loo moo meññ soxna mati jaxate soxna mati jaxate mii nag moo meññ sëriñ moustapha saalihu moom sëriñ touba cheikh saalihu mbàkke kii di sëriñ balla jaxate moom soxna jëng si la libaas ak mbiru sëriñ Modou Asta Jaxate moo meññ sëriñ Mewnu Jaxate sëriñ Mewnu Jaxate nag moo nekkoon ancien chef de village su dëkk bu sell bii di Touba nekkoon na fi itam président commune rurale bu Touba sëriñ Alsaan Jaxate moom soxna Jëng Silla Libaas mi ak sëriñ Modou Asta Jaxate moo meññ ku ñuy wax soxna Faati Baakar Jaxate soxna Faati Baakar Jaxate mi moo meññ sëriñ Hamsatu Jaxate moom sëriñ Muntaqa Jaxate di xalifab sëriñ Hamsatu Jaxate mi sëriñ Mbàkke Jaxate moom soxna Jëng Silla Libaas ak kii di sëriñ Modou Asta Jaxate moo meññ ku ñuy wax sëriñ Mawnu Jaxate bu Jurbel sëriñ Mbàkke Jaxate mii nag di rakku sëriñ Xamsatu Jaxate bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yabalee sëriñ Xamsatu Jaxate ci dëkk bu sell bi di Tuubaa sëriñ Mbàkke Jaxate moomu nag moo remplacé sëriñ Xamsatu Jaxate ci ëttub Xaadim bi ci liggéey bi sëriñ Xamsatu Jaxate daa liggéeyal ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci njaareem soxna Asta Jaxate moom soxna Jëng Silla Libaas ak kiri sëriñ Moodu Asta Jaxate ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim dëkkoo woon na ko ba am na ci bant bu ñuy wax sëriñ Abdu Baaxe Mbàkke soxna Faati Jaxate moom soxna jang si la libaasa ak kii di sëriñ moodu asta jaxate bi matee dem kër ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim lañ ko jébbaloon ba tax na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim am na ci njaboota ñu ràññee ci kii di sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke mi nekkoon juróomeelu xalifa xaadim rasuul soxna mariama jaxate moom soxna jang si la libaasa ak kii di sëriñ moodu jaxate bi matee dem kër moom itim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim itim dëkkoo woon na ko ba tax na moom meññ kii di sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke mi nekkoon ñetteelu xalifa xaadim rasuul ak kii di sëriñ tuuba bu mbàkke ibnu xaadim rasuul kon juróom yi nag la soxna jang si la libaas am ak kii di sëriñ moodu asta jaxate ci biir juróom-ñetti bant yooyu soxna jang si la libaas am ak kii di sëriñ moodu asta jaxate kii di sëriñ xamsatu jaxate lañ ciy waxtaane tey jii biñ matee dal lii di alxuraanul karim waajuram sëriñ moodu asta jaxate moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu di meenu jaxate ginnaaw bu ko waajuram sëriñ moodu asta jaxate jàngalee alxuraan ba noppi laata muy bind kaamil bi nag ku baax ki sëriñ tuuba seexu cheikhul xaddiim laajlu na ko ginnaaw bu ko sëriñ moodu asta jaxate jébbalee moom sëriñ xamsatu jaxate ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim bi nag di cumb leen ngir nag mu bi bisib keroog bi ko sëriñ tubaa seexul xaddiim di yóbbu ci cumb leen ma ngi leen doon xamal ne dëkk boobu di cumb leen dëkku barkeelu la kon nag fu ngeen jaar dem fa ci sëriñ cumb leen binde fa nag lii di kaamil bi ndax ngeen barkeelu ca ëtt ba bisub keroog nag bi ñuy dem nag ci dëkk boobu nag di cumb leen ñeenti doomu aadama nag la sëriñ tubaa seexul xaddiim boole ngir yit leen sëriñ cumbuleen ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ moor sëy lampum njàmbur sëriñ balla joor mbàkke sëriñ omar mbàkke bu mbàkke kajoor ak moom sëriñ xamsatu jaxate jébbal leen sëriñ leen ci cumb leen foofu nag lañ nekk nag ba bind nag lii di kaamil bi ginnaaw buñ bindee kaamil bi ba noppi nag lañ jógee nag ci dëkk boobu nag di leen ñëw nag wéy nag nekk nag ci loxo maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru maam Cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ti moo leen jàngal nag lii Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kii di sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Lamin Gay Firdawsi itim nag jàngal na ko itim nag lii di xam-xam sëriñ Lamin Gay mii nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim la bokk ci ñii nag la sëriñ Hamsatu Jaxate nag jaar nag ci wàllum njàng ma wax leen nag sëriñ Hamsatu Jaxate nag li ko indi nag ci yoon wi ndax waajuram wii nag di sëriñ Moodu Asta Jaxate ku wëllërante woon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim la moom sëriñ Moodu Asta Jaxate sëriñ Moodu Asta Jaxate moom sax laataa muy wóllëre ku baax xaddiim taalibépp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la woon ndax laata ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di wootee sëriñ ndaam abdourahmaan loo sëriñ balla baraay ak kii di sëriñ moodu asta jaxate doon nañ waxtaan ñoom ñett nag bis na sëriñ moodu baraay doon leen wax ne moom daal yëg na ne daal am na ko bees ku war a woote waaye nag ñoom xamuñu woon nag ki war a woote nag fan la war a woote ak kan la ñoom ñett nag doon nañ wax ne ne képp ku ci njëkk a gis kooka wala nga njëkk a xelmati kooka ko yëgal sa moroom ginnaaw bu ko sëriñ ndaam abdourahmaan loo njëkkee yëg nag ci ñoom ñooñu waxoon na ko nag kii di sëriñ Balla Baraay sëriñ Balla Baraay itam ñëw na jaayante ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim bi ko sëriñ Ndaam Abdourahmane loo nag di wax nag sëriñ Modou Asta Jaxate dafa tolloo woon ak soxna Jeng si la libaas mi am nag lii di gan bu ko sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo waxee sëriñ Modou Asta Jaxate ba noppi sëriñ Modou Asta Jaxate mi ngi ko doon wax ne jamono ji daal soxna si moo nekk ci ay xat-xat waaye heure bu ci génnee rek danaa ñëw gisante kooka ngir mën a jaayanteeg moom itim kon sëriñ Modou Asta Jaxate itam nag lii moo ko indi nag ci yoon wi ginnaaw bu ñu waxtaanee ñoom ñett ñooñu loola itam sax tax na kii di sëriñ Modou Asta Jaxate tudde na doom sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo moomu ngir nag xamale gum ko xamale ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim muy sëriñ Abdourahmane Jaxate sëriñ Modou Asta Jaxate moom nag ginnaaw bu mu jaayante ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim wéy na nag di ziyaare si ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ba tax na itam nag mu nekk wëllëre nag ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim mu am bis nag mu ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ba tàggatoo ku baax ki sëriñ Touba sëriñ tubaa seexul xaddim nag yónnee ndaw nag ngir mu dab nag sëriñ moodu asta jaxate ginnaaw bu sëriñ moodu asta jaxate nag delsee ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba noppi sëriñ tubaa seexul xaddim nag doon na ko laaj doomu moor libaas jooju nga dëkkoo woon doom ju góor jang ca am lu mu toll booba nag fekk na nag sëriñ moodu asta itam mi ngi àndoon ak sëriñ xamsatu jaxate ca yoon wa sëriñ moodu asta jaxate di ko xamal ne dëgër na ndax lu tolloo fukki isib ak ñaar ci la toll sëriñ tubaa seexul xaddim di xamal sëriñ moodu asta jaxate soo ko fi bàyyee dana baax keroog sax sëriñ moodu asta jaxate mi ngi doon tontu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim di ko wax ne waxuma la amsatu jaxate mii de waaye soo ma ko laajoon ma jox la ko kon nag lii moo waral nag sëriñ amsatu jaxate nag nekk nag ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim bi mu nekkee ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim la ko sëriñ tubaa seexul xadim nag jëlee foofu nag yóbbu ko nag ci dëkk bi nag di cumbuleen ci sëriñ cumbuleen ngir mu wéel am njàngum alxuraanam naaw bu mu jógee cumbuleen la ko sëriñ tubaa seexul xadim jébbal maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru te moo ko jébbal sëriñ Lamin Gay Firdawsi ci wàllu njàngum xam-xam sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag dem ci géej gi nag ci atum 1895 bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di dem ci géej gi nag sëriñ Hamsatu Jaxate mi ngi ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jógee ci géej gi nag sëriñ Hamsatu Jaxate itam mi ngi ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi sëriñ Tuubaa Seexul def nag ci dëkk boobu nag di daaru marnaan kër googu nag lakk sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko nag daaru marnaan ñëw nag ci fii nag ci daaru salaam ndaam sancaat fi nag ak kër kër gi sëriñ tubaa seexul xaddim sancoon foofu moo tolloo kër soxna jóob mbàkke moom sëriñ tubaa seexul xaddim te doomu soxna jóob mbàkke jii dëkke fa di sëriñ cheikh moom sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci kër googu nag la sëriñ tubaa seexul xaddim sancaatoon am fa lu tolloogu weer ak i fan ak i fan yooyu nag sëriñ xamsatu jaxate itam moo nekkoon bëkk néegu kër googu ginnaaw bu tubaa seexul xaddim jógee takk-takk ak tubaab bi ñu yóbbuwaat ko nag ci réew mii nag di gànnaar bi sëriñ tubaa seexul xaddiim nag di a dem gànnaar sëriñ xamsatu jaxate demul ab diir bu néew nag lañ ci teg sëriñ tubaa seexul xaddiim woolu sëriñ xamsatu jaxate ci dëkk boobu nag di gànnaar daaray kaamil ji nekkoon ci gànnaar sëriñ xamsatu jaxate itam nag doxantu geestu nag yam nag ci sëriñ xamsatu Amsatu Jaxate bisub de da laa doon gunge léegi tournée yam nag ci Amsatu Jaxate ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mi ngi xamal sëriñ Amsatu na ko Seydina Amsa da laa doon gunge nii Seydina Amsa mi nga xam ne nii nag keroog bi mu faatoo ci xare bi Seydina Jibril moo ko sang jébbal ko suñu boroom Seydina Amsa moomu nag moo ñëwoon nag ci dëkk bii di xumaag nag doon ma ziyaare si doon ma joxaalee addiye nag ci bépp daraja nag ak bépp may nag bu ko suñ boroom mayoon nag moom nag la ma jébbal nag lii di addiya te man mii nag man maa ko moom te lim dese woon itam nag ci àdduna itam nag jébbal na ma ko te mi ngi nii nag diisal na ma gann nag waaye xamsatu nag yow laa koy jox ca booba sax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim da ngay mel ne sax kuy doog a feeñaat jamono ca booba itam ku wutoon na ab gàtt itam rayalaat ko nag kii di sëriñ xamsatu jaxate booba nag fekkoon na sëriñ xamsatu jaxate masata jaxate lañ ko daa woowe ci booba itam nag la ko sëriñ tubaa seexul xaddim nag di wooye xamsatu di ko wax ne nag lenn rek moo ma jaaxal mi nag matul woon ndax benn ba dafa daggoon nag ca xare ba wax jooju ko xaadim rasool waxoon nag di ko wax na seydina Hamsa loxo ba matul woon juróomi baaraam ndax benn ba dafa daggoon ca xare ba ci mujjug sëriñ Hamsatu Jaxate itam ñeenti baaraam la desee ndax benn ba itam nag dafa dammoon loola itam nag tax na la ko xaadim rasool doon wax ne yaag seydina Hamsa da ngay ne nuroo te lépp lu ma seydina Hamsa joxoon nag ci ziar bi jébbalaat naa la ko loola itam nag wuy si na sëriñ Hamsatu Jaxate ndax bépp màndarga bu ko xaadim rasool waxoon gis na ko ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam nag kii di sëriñ Xamsatu Jaxate bokkoon na itam nag ci ñi jiite daaray kaamil ja ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu itam sëriñ Xamsatu Jaxate itam nekkoon na fa ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim laataa ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag di ko yebal nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa bi ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag di yebal ci dëkk bu sell bii di Tuubaa dana ko demal ci sama dëkk bu sell boobu képp ku war a xam nga xamal ko loola itam nag tax na kii di sëriñ Xamsatu Jaxate jàngal na itam ñu takkoo takku ci yoon wi rawatina nag ñeenti doomi Xaadim Rasuul yi sëriñ Touba mas na woolu sëriñ Hamsatu Jaxate wan ko nag ak xasida di ko wax ne xasida gii nag dafa bokk nag ci liggéey yi ma doon liggéey nag ci géej gi waaye xasida gi nag dafa diis lool te suñ borom nag may xamal ne xasida gi itam nag bokkul nag ci xasida yi war a génn ginnaaw bu sëriñ Touba Seexul Xaddim wanee mu boobu nag kii di sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Hamsatu Jaxate itam nag xoolal nag xasida googu di wax sëriñ Touba Seexul Xaddim ndax da nga mën a warloon teg sart wax ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim di ko wax ne ci sa njàpp ndal de soo ma ci a nag bépp nag sart nag bu ci war ngir xasida gi génn man koo jariñoo sëriñ Tuubaa doon na wax sart yi nag sëriñ Hamsatu Jaxate di ko wax ne nag mooy nga jël xasida gi dem bind ko ba mu egg jàng ko nag ba mu mokk nga fob nag xasida gi nga bindoon jox ma xasida gi ma la joxoon ngir nga sottiwaat xasida gi itam nga boole ko jox ma sëriñ Hamsatu Jaxate itam nag nangu woon na nag wax jooju ko Xadim Rasul waxoon ba tax na itam nag defoon na nag lépp lu ko xaadim rasul santoon nag ci xasida gi sëriñ tubaa seexul xaadim itam mayoon na sëriñ xamsatu jaxate itam man ngaa dugg sëriñ xamsatu jaxate wax na na bisub keroog bi muy yóbbu nag lii di xasida ga di mu xaddimaat ba ci dayoo ak melokaan bi mu fekkoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim ka ko ca masa fekk nag ca melokaan woowu dafa génn àdduna ndax kooko da caa amul woon nag lii di ndigal xasida googu nag di mu xaddimaat bi ginnaaw bu ko sëriñ xamsatu jaxate joxee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaadim seexul xaadim nag dana ginnaaw bu ko sëriñ xamsatu jaxate nag jàngee ba noppi sëriñ tubaa seexul xaddiim nag doon na wax sëriñ xamsatu jaxate di ko wax ne képp koo xam ne nii jàngate na nag nag ci kaw suufa da nga ci amub yool moom ma ko jàng itam nag du wàññi dara itam nag ba xasida ku dem ci njabootuk sëriñ xamsatu jaxate itam ñu wan la ko muy mu xaddimaat ba sëriñ tubaa seexul xaddiim itam mas na dénk nag kii di sëriñ xamsatu jaxate di ko wax ne xamsatu leen rek laa lay dénk ab jataay itam loo fa toog toog boo fa gënee nekk gone itam nag na fa gën a mat ab jataay itam boo fa boo gënee nekk ndaw itam ci wàllu at na nga nag ko a fàcc wax ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim waxoon nag taxoon na itam nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim itam mayoon ko lépp loo xam ne ni itam nit diis na ko ko ci wàllu am-am ak bëgg-bëgg ak lii di saafara suñ boroom def ko wax mu nangu googu sëriñ xamsatu jaxate amoon bari na itam ci ak njabootam itam ñu ko bàyyee loola itam taxoon na nag nit daa daan na ñëw nag ak jafe-jafeem diis ko sëriñ Hamsatu Jaxate balaa jóge nag ci jotaay boobu mu toogoon di ko diis sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Hamsatu Jaxate mu amoon nag daana wax mu yem rek ba moo ko fa yemalee loolu itam taxoon na jarbaatam bii nag di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke royoon ko nag ci pëstéef boobu sëriñ Hamsatu Jaxate amee ba tax na itam nag musta nangoon naa li itam lu tuuti ndax pëstéef bi doomu aadama am nag ci liggéey nag pëstéef boobu itam la ko suñ borom di fekk fekk si ngir fajal ko jëf jëf diggante sëriñ Hamsatu Jaxate ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci bi àdduna xasida gu ñuy wax xaatimatul munaajaat nag la bàyyi ci kawam xasida googu itam nag sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag doon la ca dénkaane di wax ne lu tolloog ñeenti téeméeri at dana ko nekk nag ci biir njaboot gi di gëweelu su paasee ñeenti téeméeri at yi nag suñ borom nag dana ko may nag pasteefum nag yoon wi itam nag di gën di dox loolee nag nekkoon na nag lu jaaxal cheikh mamadul moustapha mbàkke ba mu waxtaanoon ceeg ñenn nag ci mag ñi ak ñim séqaloon ku baax ki sëriñ tubaa seexul na wax na cheikh mamadul moustapha teng cee waxtaan ak sëriñ xamsatu jaxate ndax moom kan moo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim daanañ waxtaane lu mel nii teng laaj nag ba xam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag dénkoon na ko ci dara wala mas na ko cee wax dara ginnaaw bu cheikh mamadul moustapha mbàkke nag jëfee waxi cheikh mamadul basir jooju woolu woon na nag kii di sëriñ xamsatu jaxate di ko laaj nag naka la dégg nag waxi ku baax ki di sëriñ tubaa seexul xaddiim muy wax ne ñeenti téeméeri at daal dana gi te fi ma ma gën a yomb seex mamadul mustapha mbàkke nag di tontu sëriñ xamsatu jaxate di ko wax ne loolu yaa ko ñaanoon sëriñ xamsatu jaxate nag di ko des nag ci ñeenti téeméeri at yi gi mooy yoon wi dana gën a yokku ñi koy nangul itam danañ gën nag di ko ko nangul ay taalibeem nag di gën di yokku ñiy jaamu yàlla itam ci gronam itam di gën di yokku ab dëkkam itam nag di gën di màgg ba ci ñeenti téeméeri at nag muy garanti nag bu ko suñ borom jox nag ci yoonam wi ba tey diggante sëriñ Xamsatu Jaxate ak ku baax ci sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ci dëkk bu ñuy wax lew na gànjool dafa am chef de canton bu fa nekkoon bu buñ doon wax mañang mañang moom itam nag doon na sàkku nag ci ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim doon ko wax ne soo mënee ñëw daal ci gànjool gi ak leew na baree bari kat dañ fee nekk nag bëgg a nekk ay taalibe te itam daal doy nga leen mañang moom nag nekkoon chef de canton nag bindoon na nag ay lettre lettre ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di sàkku nag sëriñ tubaa seexul xaddiim ñëw nag ci gànjool googu ñoom nag ñu mën a jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wala sëriñ tubaa seexul xaddiim am fa ak ngan ci ñoom ginnaaw bu mañang moomee nag bindee ay lettre lettre ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xamsatu jaxate nag la yónni woon ngir mu dem nag wuy ji mañang nag nekkal ko fa keroog bi sëriñ tubaa seexul xaddiim nag di yónni sëriñ Amsatu Jaxate nag ci dëkk boobu di lew na gànjool ab fulku itam la na nga bindaatal ma nag fulku bi te saa bu fulku bi eggee nag bu doonee guddi boo xëyee na nga ñëw bu doonee suba itam nag na nga gontu ñëw loolu rek la sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim nag waxoon nag kii di sëriñ Amsatu Jaxate sëriñ Amsatu Jaxate itam nag mi ngi bàyyi ko ci njaareem ngir dem nag gànjool ci bëccëg ak fukki fan ak juróom nag ci weer wii nag di weeru korite ginnaaw bi sëriñ Amsatu Jaxate nag eggee nag gànjool loolu itam nag la waxoon chef de canton bi itam mañang di ko wax ne lettre ba lay tontu si ginnaaw bu ko mañang dalalee nag ci gànjool googu dugg bee génn bi nag bari woon loolu nag ci sëriñ xamsatu jaxate di ko nemmeeku tax na itam nag fulk bi sëriñ xamsatu jaxate nag bëggoon a bind na ak gàllankoor mujj na itam sàkk woon nag ci chef di ko wax ne na ko tuxal faneen ci àll bi mu doog ko yóbbu nag ci foofu ñuy wax lew na loolu itam tax na diirum ñeen fukki fan ak juróom yooyu mu am nag ci dëkk boobu nag di gànjool képp koo xam ne ni feeñ na fa jamono wala nga génn fa àdduna sëriñ xamsatu jaxate ne itam nag sëriñ Xamsatu Jaxate nag la ñuy wax nag mu gunge ko ña bëggoon a jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñëpp itam ci sëriñ Xamsatu Jaxate itam nag lañ mujj jébbalu yaakaar bi ñeen fukki fan yeeg juróom nag matee ba sëriñ Xamsatu Jaxate nag di ñibbisi mañang nag doon na ko laaj ne lan la la Xaadim waxoon mu di ko wax ne daan boo demee nga wax ne maa ñaaman may tontu si lettre bi mañang nag di chef de bi doon na sàkku nag ci sëriñ Xamsatu Jaxate waxoon mañang nag di chef de canton a ba ba fexe na nag ba matale nag yónneen ba ba kañ ko yónni woon ca yónneen ba sant ko loola itam nag gën na cee santaat ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim loolu moo waral nag waa Gànjool nag di màggal ñeen fukki fan ak juróom yooyu nag ya fa sëriñ Hamsatu Jaxate defoon ngir rafet jortu ne nag bis boobu nag lañ xam xaadim rasuul fulku boobu nag sëriñ xamsatu jaxate nag bindoon nag ci gànjool mi ci kenn nag ci sëriñ tuubaa yi ba tey diggante sëriñ xamsatu jaxate ak ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaadim ci guerre mondiale bi ñu tudde woon 14 18 bi Allemagne nangoon nag lii di France sëriñ tuubaa seexul xaadim tubaab yi nag seet si woon nañ ko doon ko wax ne daal ñun gis nañ ne fu baree baree bari daal jaar nañ fa ak yow te mënu a baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nag keroog mi ngi doon tontu nag délégation boobu nag ko seet si woon di leen wax ne incha allah dara du xew tubaab bi nag keroog ñu ngi doon wax nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne incha allah kese la toppoo woon nag tubaab yi ginnaaw bi itam nag laajoon na mag ñi itam nag ñu joxe ay soldaar ngir ñu dem itam ci réew moomu booba itam nag ci teewaayu sëriñ xamsatu jaxate la sëriñ tubaa nag doon na xamal sëriñ xamsatu jaxate di ko wax ne nag lu mel nii nag dana amaat ci kanam waaye su yeen nga tontu leen moo tax itam nag bi ñu demee ba ci atum 1939 muy deuxième guerre mondiale bi di 39 45 bi tubaab bi delsi waatee itam waxaat cheikh mamadul moustapha mbàkke li ñu waxoon xaadim rasul di wax cheikh mamadou moustapha mbàkke di ko wax ne sa waajur wa de gisuñu ko waaye gis nañ ne yow yaa ko fi wuutu te lam manoon itam man nga ko liñ ko waxoon nag ba mu am lañ bëgg itam ñu wax la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke sëriñ xamsatu jaxate itam la woolu woon di ko wax ne tontul tubaab bi sëriñ xamsatu jaxate na wax tubaab bi incha allah tubaab bi di ko wax ne incha allah yàllaay kese itam nag duñ ci sukkandiku sëriñ Amsatu Jaxate itam nag duggoon na nag lii di xalwa ginnaaw bu mu génnee xalwa itam nag lii di baaraam ba sax dafa mujjoon damm damm-damm baaraam boobu itam nag taxoon na nag mujj gi sëriñ Amsatu Jaxate dese ñeenti baaraam ginnaaw buñ ko laajee nag sababu loolu doon na wax ne sëriñ Tuubaa Seexul mas na ko wax ne Seydina Amsa da ngeen a nuroo waaye daal li ma jaaxal ci yow mooy ñeenti baaraam la ba dafa desoon ci xare ba te yow juróomi baaraam nga yor wax jooju nag sëriñ Amsatu Jaxate nee na ginnaaw bu ko Xaadim Rasuul waxee la xamoon ne ala budda daal dana yor ñeenti baaraam baneen sabab bi itam wax na ne lim jëfandikoo ci turu suñu boroom ci bi tubaab bi seet seet cheikh mamadul moustapha mbàkke ngir france itam bañ a ñàkk guerre bi turu yàlla woowu itam moo ëpp doole xeex ba ñetteelu sabab bi li waral baaraam bi dem doon na wax ne rus na bindal keneen nag kudul sëriñ tuuba kersa googu mu amoon nag moom itam nag la baaraam ba seede ngir wax ne su demee nag duutul bindal keneen kudul xaadim moo tax nag baaraamu sëriñ xamsatu jaxate ba nag dem fii itam Mountakha Mbàkke ci ndigal nag lu ko xaadim rasul joxoon ba tey sëriñ Hamsatu Jaxate ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim ko taalibeem bu ñuy wax sëriñ Daam Joorloo sëriñ Daam Joorloo moomu bisub keroog bi muy jaayante si ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim ginnaaw buñ ko joxee ab lettre dañ ko doon wax boo Jaxate jébbal la jaaroon sëriñ Hamsatu Jaxate itam moo ko yóbbu nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim loolu itam tax na ginnaaw bu sëriñ Daam Loo jaayante jaayanteeg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba noppi sëriñ tubaa seexul xaddiim itam daa wóolu sëriñ xamsatu jaxate boole leen lool moo waral sëriñ daam loo itam gëmul ku dul sëriñ xamsatu jaxate sëriñ xamsatu jaxate itam fonk lool sëriñ daam joorloo ngir xaadim rasuul lool nag tax na sëriñ daam joorloo ci diiru dundam moo nekkoon jëwruñu moom itam bi génnee àdduna bi mag ñi ñëwee itam nag di ko jaal sëriñ xamsatu jaxate ndax fonk gu ko sëriñ xamsatu jaxate fonkoon Amsatou Diakhaté mi ngi leen doon wax ne daam joorloo mi de yaakaaruma ci kuddut xaadim rasuul ndax yéene ji ma ci am moom rek laa ci yaakaar loolu itam tax na nag sëriñ Amsatou Diakhaté sañtul benn dëkk waaye jëwriñam ji nag di sëriñ daam joorloo gor na ay dëkk dëkk yooyu sëriñ daam joorloo gor na ci ndigalul sëriñ Amsatou Diakhaté itam nag la ko goree dëkki sëriñ daam joorloo muy moom sëriñ Amsatou Diakhaté joxoon na ko doomam muy ku ñuy wax soxna tuuti Jaxate moom it sëriñ Amsatou Diakhaté itam yoroon na doomam ju ñuy wax soxna busaloo bintu sëriñ daam joorloo sëriñ daam joorloo moom na sëriñ xamsatu jaxate doom muy sëriñ xamsatu loo ba tey diggante sëriñ tuuba ak kii di sëriñ xamsatu jaxate am na bis nag feebar bu méttee métti dal nag kii di sëriñ xamsatu jaxate mag ñu baree bari ñëwoon nag seet si ko mu leen di xamal ne demagul am na seede boo xam ne ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim moo ko waxoon ne da nga ko seede te loola nag gisagu ko kon nag wér na ko ne moom génnagul nag lii di àdduna ba noppi ñetti weer nag lañ ca teg nag mu génn nag lii di àdduna kon nag muy mel ne nag seede soosu nag la waroon a seede am na bisi tim ci njaaram sëriñ tubaa seexul xaddim woolu woon sëriñ xamsatu jaxate naroon koo yabal ngir mu dem yori waajuróom wow di sëriñ moodu asta jaxate ginnaaw bu sëriñ xamsatu jaxate waajee ba noppi nag sëriñ tubaa seexul xaddim woolu waat na ko di ko xamal na suñ borom de xamal na ma ne maag yow wuru ñoo tàggoo mukk mu ne ko wool ma nag abdourahman jaxate sa rakk ngir mu dem nag yori sa waajur wow di moodu asta jaxate loolu moo waral sëriñ abdourahman jaxate di rakku sëriñ xamsatu asta jaxate sëriñ xamsatu jaxate nag ku yéeme la woon am na bis nag mu toog nag ci këram gi nag di tuubaa ci waxtu tàkkusaan mu wax na ne képp koo xam ne mi ngi ci kër gi nag na dem waaj nag ñëw ñu julli tàkkusaan ginnaaw ba nit ña nekkee ca kër ga waaj ba noppi nag fa yéene julli nag lii di tàkkusaan biñ jullee tàkkusaan ba noppi nag sëriñ xamsatu jaxate nag keroog doon na wax ne julli tey jii de képp koo xam ne ni ànd nga ci suñ borom defal ne la tawféex ndax julli tey jii de kii di moor jaxate jiitewul waaye borom jumaa ji moo jiite muy xaadim rasul jamono jooju nag sëriñ moor jaxate nag moo nekkoon imaamu Touba julli goog mu woote woon bisub keroog nag ci këram du ñàkk nag ko wax ne man mii fa la ma fekkoon ku amoon ak jaxasoo la ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim kii di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu sëriñ Xamsatu Jaxate nag nekkee ci yoon wi Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la ko joxoon ngir mu jàngal ko itam nag lii di xam-xam bi sëriñ Touba Seexul Xadiim demee ci géej gi itam ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam la nekk nag ba nag tax na moom maam Cerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru itam amoon nañu ak jaxasoo ba tey itam ci diggante maam Cerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru ak kii di sëriñ Xamsatu Jaxate bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di wut loo maam Cerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru ñoo xam ne nii itam moom la war a dëkkoo seen juróom-ñaari maam musuñoo moy suñu boroom te maam Cerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru doon ko wër ci biir réew mi sëriñ Xamsatu Jaxate itam waxoon na maam Cerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru suñu kër am na ko ba tax na itam nag kii di maam Cerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru ndakaaru ci rakki sëriñ Hamsatu jaxate yooyu itam la ko mujj jëlee muy soxna faat jaxate digganteem ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru dëkkoo woon nag doomu maam Ceerno Ibrahima Faati bii ñuy wax soxna faati balla ba tax na kii di sëriñ Hamsatu jaxate itam am na ci ñaari bant muy soxna abi jaxate soxna abi jaxate moom bi matee dem kër sëriñ Tuubaa ko jébbaloon ba tax na sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke am na ci njaboot muy sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Mbàkke ñaareelu doomu soxna faati balla Mbàkke moom ak kii di sëriñ soxna say jaxate soxna say jaxate moom sëriñ soye bu mbàkke lañ ko joxoon ba tax ne nag mu am ci nag kii di sëriñ cheikh say mbàkke rakkam jii ñuy wax sëriñ mbàkke jaxate itim sëriñ moodu asta jaxate maam ceerno a faati mbàkke ndaamal daaru itim la ko tuddee kii di cheikh masamba mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke ko amoonuk jaxasoo la ak kii di sëriñ xamsatu jaxate ba tax na bi sëriñ tubaa seexul xadim di wut nag ñu ko nekkal ci dëkkam bu sell Rokhaya Bousso itam kasaalika wóllëréew ba tax na bi sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim fobee dëkkam bu sell bii di Tuubaa sëriñ moo la joxoon nag lii di chef du village gi jox sëriñ Hamsatu Jaxate bi ñoom ñett ñooñ moom amoon nañ ak jaxasoo gu a wér a a wér nag ndax sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo leen ko boole sëriñ Omar Mbàkke bu Mbàkke Kajoor wóllëréew sëriñ Hamsatu Jaxate la woon keroog bi leen sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di yóbbu nag ci dëkk bi nag di cumb leen ngir ñu jàngi ñoom la boole woon yóbbu nag ci sëriñ cumbuleen sëriñ moor sëy lampum njàmbur itam kasaalika ndaxte kero bi leen sëriñ tubaa seexul xadim di yóbbu itam ci sëriñ cumbuleen ñoo àndoon muy sëriñ moor sëy lampum njàmbur sëriñ omar mbàkke bu mbàkke kajoor ak kii di sëriñ balla joor mbàkke ñoom ñeent ñooñ kat la sëriñ tubaa seexul xadim boole yóbbu woon cumbuleen sëriñ ndaam abdourahman lo ko amoon kóllëre la nag ak kii di sëriñ xamsatu jaxate waajuru sëriñ xamsatu jaxate di sëriñ moodu asta jaxate tudde doom muy sëriñ abdourahmaan jaxate ak kóllëre moom amoon nañ ko gu yaatoo yaatu cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina ku amoon kóllëre la ak kii di sëriñ xamsatu jaxate ba tax na maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina tudd na doom na kii di sëriñ xamsatu jaxate muy sëriñ xamsatu fall bu maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina sëriñ xamsatu jaxate la ko tuddee sëriñ xamsatu jaxate ku amoon kóllëre la ak kii di sëriñ mbàkke buso ba tax na moom sëriñ xamsatu jaxate tudd na doom kii di sëriñ mbàkke buso muy sëriñ aas jaxate bu sëriñ Mbàkke Buso la ko tuddee naar bi ñuy wax Abdourahman Alxalawiyu bindoon na itam ak seede itam ci sëriñ Xamsatu Jaxate ginnaaw bu mu nuyoo mi ngi wax ne sëriñ Xamsatu Jaxate li mu am suñ borom mi ko jagleel dong na dem ziyaare ji sëriñ Xamsatu Jaxate mu ne moom amul lu muy sikki sàkk ci képp koo xam ne dem nga ji sëriñ Xamsatu Jaxate li nga bëgg ci suñu borom da nga ko am mu ne nag rawati na jamono jii muy waxee ak ñun ndax sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nekkutu fi kon nag gisutut benn a ziyaare ñu teewlu seede bi naar bi defoon ci sëriñ xamsatu jaxate di abdourahman al alawi cheikhu hamzatu is mawlaahu awlaahu maa laysa yadrihi illa allahu mawlaahu surhu li naylika ma tarju wa taamuluhu yaxwi lasi saarahu ma shaa mawlaahu wala ara mustahaqan an yusaara isaa tabqi siyaarata min sal xalqi illaahu seede boobu nag la naar bi defoon ci moom sëriñ xamsatu jaxate yeneen mag ñim bokkaloon atub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim itam nag loolu la séqoon ak ñoom muy ak kóllëre gu yaatoo sëriñ tubaa seexul dong na nga doon xool ci sa moroom te loolu itam nag ñoom sàmmoon nañ ko njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim gi cheikh mamadul moustapha mbàkke ibnu xaadim rasul kii di sëriñ xamsatu jaxate tudde na ko doom sëriñ moustapha jaxate moom sëriñ xamsatu jaxate mi ngi fi woon te cheikh mamadul moustapha mbàkke mi njëkk a wutu xaadim rasul la ko tudde woon ba tey diggante sëriñ xamsatu jaxate ak cheikh mamadul moustapha mbàkke ndigal li sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon sëriñ xamsatu jaxate ci sëriñ tubaa cheikh abdoulahad mbàkke sëriñ tubaa cheikh saalihu mbàkke sëriñ soy bu mbàkke ak kii sëriñ Abdou Samad Mbàkke ibnu Xaadim Rasool ngir mu jàngal leen lii di alxuraan keroog bi mu leen di jébbal seen kaamil ya cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke la ko jébbal doon ko wax ne gisatuma seen waajur wa te yow mii nag yaa fi seen waajur moo tax itam nag kii di sëriñ Abdou Lahad Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke sëriñ Sohaybu Mbàkke seen kaamil yaa ngi nii ginnaaw bi itam nag la jébbal cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke kaamilu cheikh Abdou Samad Mbàkke ndax xam na ne cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke moo fi Xaadim Rasool loolee itam nag taxoon doomu cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bii Mbàkke Gaynde Fatma amoonuk jaxasoo lool ak kii di sëriñ Hamsatu Jaxate ba tax na bi sëriñ Hamsatu Jaxate génnee àdduna ci atu 1969 cërëb biñ koy jébbal boroomam sëriñ Tuubaa Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ndax ko gu yaatu gum amoon nag kii di sëriñ Jaxate ba looloo waral sëriñ Hamsatu Jaxate biñ koy denc daanaka tisbaar jot na Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke ku amul kóllëre la ak kii di sëriñ Hamsatu Jaxate ba tax na dëkkoo woon naag doomu sëriñ Hamsatu Jaxate juñ soxna Marema Jaxate soxna Marema Jaxate moomu bintu sëriñ Xamsatu Jaxate mook Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke am nañu njaboota muy ku ñuy wax soxna Fatma Mbàkke soxna Fatma Mbàkke moomu mi ngi ci barabu sëriñ Xamsatu Jaxate foofu lañ ko denc mu tëddaale ca maam ja tudde na itam nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom itam doom Jaxate ba seenu ko lëre ak seenu jaxasoo yéeme woon na lool ba tax na doomu ko baax kii di sëriñ Tubaa Seexul Xadiim di soxna Muslimatu Mbàkke bintu sëriñ Tubaa xaddim cheikh mamadul basir moo ko jébbal sëriñ xamsatu jaxate ngir sëriñ xamsatu jaxate dëkkoo ko ba tax na sëriñ xamsatu jaxate itam am na ci njaboot muy sëriñ abdu muhayminu jaxate ibnu soxna muslimatu mbàkke la bintu xaadim rasul ak kii di sëriñ xamsatu jaxate sëriñ mustapha gay itam sëriñ baara gay faati mbooj itam wóllëre sëriñ xamsatu jaxate la woon ndax waajuram woow di sëriñ baara gay faati mbooj bu sëriñ tuuba seexul xaddim daa bëgg a watu bokk na itam baara gay faati mbuuj daa wat ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw sëriñ baara gay faati mbuuj itam ñu bare bare itam ci mag ñi wéyal nañ ko ci njabootuk sëriñ baara gay faati mbuuj rawatina kii di sëriñ mustapha gay moo tax sëriñ mustapha gay itam daa na wat na kii di sëriñ xamsatu jaxate ndax barkeelu gum daa barkeelu ca waajuróomam wa loolu ma waral loolu itam amoon nañ nag ak relation gu yaatoo yaatu sëriñ Alioune Fall bu maam Cheikh ràññee ku ñuy wax sëriñ fàllu faal ak a na sëriñ bu so itam amoon na ci njaboota muy ku ñuy wax soxna moomi buso ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax mag ñi kenn ku ne xaadim rasul nga doon xool si sa moroom sëriñ xamsatu jaxate jikko jooju mu amee woon tax na itam nañu takkoo takku ci yoonu murid tudde ko ay doom ñu man cee ràññee kii di maam cheikh ibrahima fall lamp baabul murid diina tudde na ko doom sëriñ Hamsatu Faal bu maam Cheikh Ibrahima Faal Lamp Baabul Muridiina mi ngi fi woon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke tudde na ko doom sëriñ Hamsatu Mbacke bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi ngi fi sëriñ bu Mbacke ibnu Xaadim Rasul tudde na ko doom sëriñ Hamsatu Mbacke bu sëriñ Soye bu Mbacke mi ngi fi Cheikh Murtada Mbacke ibnu Xaadim Rasul tudde na ko doom sëriñ Hamsa Mbacke bu Cheikh Murtada Mbacke yeneen cheikh yi mbokk loon ëttub ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Xadim ñu ci baree bari itam tudde nañ ko doom sëriñ Hamsatu Jaxate mi ngi génn àdduna bisub dibéer fukki fan ak benn benn ci weer wi di weeru tamxar ci atum 1389 ci gàddaay gi dibéer fukki fan ak benn ci weer wi di weeru tamxar ci atum 1389 ci gàddaay gi mu dëpp dëppook bisub dimanche 30 mars 1969 dimanche 30 mars 1969 ci kër gi mu dëkkoon ci Touba Daarul Minan kër googu mu dëkkoon ci Touba Daarul Minan moo tolloo kër doomam ji di sëriñ bu Jaxate ci biir kër googu la génnee àdduna ci baraag bi nga xam ni ci la dëkkoon moom bi muy génn àdduna sëriñ Hamsatu Jaxate mi ngi ci biir kër googu di kër sëriñ bu Jaxate di doomam ba nëga ni baraag boobu mu génnee àdduna mi ci biir kër googu di kër sëriñ bu Jaxate ci kër googu nag la génne génnee àdduna ci atum 1969 ci xilaaf ak jarbaatam sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mi jarbaatam moo woolu sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir mbakke ngir mu jullee nag seen nijaay jooju di sëriñ Amsatu Jaxate ci teewaayu nag mbooleem jarbaatam nag yi nekkoon nag ci yoon wi jamono jooju ak lii ax lu murit gi ginnaaw bu mu génnee àdduna ci dimanche jooju biñ koy jébbal boroomam nag waxtu wa moo nekkoon fukki waxtoog benn ci bëccëg gi ndax sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad sàkku sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma teewe ko loolu moo waral sax nag ñu yeex a jébbal boroomam kii di sëriñ xamsatu jaxate ndax sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma dafa yeex a ñëw sëriñ xamsatu jaxate nag ñu ngi ko denc nag ci wetu barabu ma masàmba mbàkke sooy dugg nag ci armeer yi ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ xamsatu jaxate ci atum 1969 ba atum 2002 xalifaam nag bi ko njëkk a wuutu mooy sëriñ abdullahi jaxate ñaareelu xalifa sëriñ xamsatu jaxate mooy sëriñ mustapha jaxate moo ko wuutu ci atum 2002 2002 ba 2005 ñetteelu xalifa sëriñ Hamsatu Jaxate mooy sëriñ Moodu Jaxate moo ko wuutu ci atum 2005 ba 2009 ñeenteelu xalifa sëriñ Hamsatu Jaxate di sëriñ Muntaxa Jaxate bu daaray Kaamil moo fi nekk ci atum 2009 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ Hamsatu Jaxate bii ndax sag la ci yoon wi sag la itim nag ci njabootu sëriñ Hamsatu Jaxate ak mbooleem nag ay rakkam nag yum séqal sëriñ Hamsatu Jaxate góor ak jigéen suñ boroom am na ko mën na ko yàlla na ko def ci darajey seen waajur woowu nag di sëriñ xamsatu jaxate sëriñ xamsatu jaxate nag am na ay bis nag yuñ koy fàttaliku lii di njabootuk boppam nag amaguñ nag bis fixe bu ñuy fàttaliku sëriñ xamsatu jaxate waaye nag am nañ nag luñ tudde ay ziyaar at mu jot alxamis ji jiitu nag ci weer wii nag di weeru safar njabootuk sëriñ xamsatu jaxate gépp nag danañ maasaloo dajaloo dem ziyaara ji xalifa général des mourides itam ngir jébbal ko seeni àddiya ngir sëriñ xamsatu jaxate weer wi itam di muy weeru gàmmu saa bu dikkee itam njaboot gi itam dañañ dajale seeni àddiya ngëm yit ko itam ki fi nekkal sëriñ Xamsatu Jaxate na bu ñuy fàttaliku sëriñ Xamsatu Jaxate màggal googu itam nag du bis fixe ci at mi heure bu ñu jàppee poroxaan nag ba noppi nag la ñuy jàpp itam màggal googu màggal googu itam ñuy màggal ci leew na gànjool ngir jagleel ko sëriñ Xamsatu Jaxate mooy bi ko fa sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim yabalee ngir itam nag mu tontu nag chef de boobu boole koog nag sëriñ Xamsatu itam nag ci dëkk boobu bis boobu itam nag la waa Léona Gandiol itam di dundal doomam ji itam nag di sëriñ Xaas Jaxate te yore daaray xam-xam ji nga xam ne ni Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moo ko joxoon ci jumaay Tuubaa ji moom itam nag bis bii nag di bisub gàmmu itam nag dana ko màggal ngir waajuram màggal gum ko daa màggal ci Tuubaa lii nag mooy ay bisi yëngutu nag ci njaboot gi ñuy ñaan ci jàmbaari ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ja di sëriñ Xamsatu Jaxate ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waxoon ne demal Tuubaa di ma fa jàngleel yàlla nañu ko suñ boroom fayal te barkeem bi jéeyi jarbaatam yii nag lii di jafe-jafey réew mi yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey sëriñ Hamsatu Jaxate amiin Hamsatu